ah loolu kóllëre la. non man suma mag la. ma gis ni. Ah. ñoom caravane mm-hmm. de la paix en Casamance. Uh-huh. daf daa sexal xale yi ni leen fi ngeen dëkk fi ngeen juddoo fi ngeen yaroo fi la leen baax fekk waaye fi ngeen fekk baax ma bëggoon ngeen xam seen cosaan mooy lan loo leen di conseillé ba loolu ñu mën ko conclure. waa nañ ko sàmm ndax xam nga moom li mu doon wax li ma gën a marqué lii mujj waxtaane nee na ma. du yàgg yàgg ba sa Balla Gaye génne Sa Thiès waaye Balla Gaye daa yor njaboot Sa daa war a am yëfi boppam loolu jàngal sa doom jom la waaw di sant yàlla rek di ñaanal suñu papa Double Less yàlla na ko yàlla yaram xëre ko aljana ku mu fa fekk ak ko fekk ah. am waaw di ko jaal Balla Gaye ak Sa Thiès ak njaboot gi yëpp di wax ne làmb am na naqar Sénégal am na naqar na nag noonu la waaw ñi fi des nañ leen di ñaanal ñoom ñi dëddu xam ne àdduna noonu la daal. mais lan ngay conseil Balla ci maanaam xeetu ni mu déggook magam ci barki Demba njaay bi action bi amee xaw a tiraay maa xaw a am tuuti mag jënd ko jox naa leen ndigal la defal lolo soob ndax yow la yàlla jiital maay sa mag waaye yaay doon kilifa kër gi. Mhm. tey ñu def lii ñu def ànd loo koy conseillé ci wàllu nu muy def ba euh, gérer ay njabootam. waaw mais noonu la nit da ngay am kilifa nit moom boo amee kilifa da ngay neex a digal. sa waay moom xam côté bobu mom vraiment sante yalla quoi de yalla. amna ñu koy wax muy dégg loolu alhamdulilah. papaam dem na mais bien vrai que amna ñu fi dess diko ko lolu sante yalla eh la. may wax diko ñaanal yalla rek yalla xare ko arjuna Double les dafa nekkoon note bo xam ni bu baax la. te ci walu sport Double les amul lu mu deful ci Sénégal. Double les képp ku nekk champion fi bëri ak yow. Mhm. ñu mel comme Mbaye Guèye ñu mel comme Robert Diouf. Mhm. ñu mel comme Moussa Diamé mhm. et tant d'autres. di wax ne. xol bu mu amoon moom rek moo ko am ci mbër. wax ne Double Less jul julit la. mun naa ko séddee lu tax ma wax loolu. dañu nekk en réunion. ñuy waxtaan waxtaan bu heure bi jot mu ne eh, taxaw leen. ma ne ko lan la Less mun na ma waxtu bi jot na na gars yi dem juli ñu war a juli dem juli. ci jàpp nañu dem jàpp. kon ku gëm yàlla rek. yaakaar naa ne moo mun a def loolu. waaw te moom ci boppam. Mhm. Less. Mhm. Euh, ànd na ak mom Abidjan ànd ak mom États-Unis bi may ànd ak mom Abidjan euh, drapeau Sénégal lañu yeb won ñu dem di entraîner man ak mom di entraîner bi ma ne ko da nga sonn mu ne ma yow li dafa la mun sonal mu forcé ma ñu continuer entraîner bi ma ñëwee jógee ma tënk ko ci lamb ji moo tënk ci làmba ji bu ñëw génne mu ne ma yow saa saay nga jàpp suma nopp man ngay tënk dinaa la dóor de dinaa la dóor ma ne ko grand mhm. dañu war a bëri mu ne ma waaw loolu baax na yàlla def mhm. ñu bëri ñu match ni ñu bëri waat ma daan ko mhm. ni ci foog ne duubale sa def ma may jël bi di wax ne senegal moo ñàkk waaye monde entier tamit moo ñàkk ndax ki dem papa ñëpp la. dëgg lu baax la xamoon. lu baax lay wax. ci la dëkk. yow gis nga bi ñu demee Casamance ñoo ànd. mook Baye la yal na ko yàlla yërëm moom it. ñoom ñaar ñoo bokk néeg. dëgg man a yow suñu néeg yi ñoo takkaloo woon ak léegam mais heure su ma sànni xëy suba teel. dañuy toog di waxtaan. bu ñuy digal lu baax dañuy waxal lu baax. lem soo daal mooy. yal na ko yàlla yërëm. yóbbu ko àjjana gën a kawe. yàlla daal bëri na yërmaane. yal na ko yàlla yërëm yal ko yàlla ndaxte képp ku xamoon Double Less ñëpp xam nañ ko ci tayam ci bëgg nitam ci bëgg njabootam fonk Sénégal kon nag ñàkk nañu nitu jàmm nit ku bëggoon njabootam parce que yàgg naa waxtaan ak moom te xam naa ne xelam ak xolam yëpp ci njabootam la ko defoon kon nag ku mel noonu bu fi jógee. Mhm. mën nañu wax ne Sénégal yëpp a ñàkk. dañu mhm. mën rek lu dul ñaanal ko. Mhm. yàlla xaaree ko àjjana. àjjana ci gën a kawe. aar njabootam. di ko jaale senegal yëpp nag. di ko jaale njabootu sportif yëpp. di ko jaale waa Géejawaay. Eh, di ko jaale senegal yëpp. ndaxte double double pour Sénégal yëpp nag. waaw xam nga tey yàlla dafa def sunu kër maa fay mag. Eh, pay sam papa père wolès ñom ñep ay xaritu benn bakkan lañ. ndax yaakar na ni bu ñëwee kan mooy eh, xaritu Doubalès si góor gi daaw de la xel yépp di dem. waaw lañu wax de. waaw parce que loolu moy suñu téway tay mm-hmm. ba paré pa wi yar ñu. Mm-hmm. mo ñu yar ndo lepp parce que sam papa musa nam combat mom du lek kërëm kër pa wi lay lek su mom tay su amone combat sam papa du lek kër ga kërëm lay lek mm-hmm. man mi maanaam yobu meewam ci biir néegam. su musa saan muy liggéey sotraak man lay daan jox meew ma jël ko yobu moom waaw kon mën naa si wax lu bëri. dëgg la. Euh, yaakaar naa ni xam naa ko bu baax nag gone la mais nag xam naa ko lu baax ndax sama papa wax na ma lu bari si moom. te di wax baatu inna lillahi wa inna rajo rajiun euh, di wax ne rek euh, ci yàlla la ñu jógee ci yàlla la ñuy dellu. tey mu nekk tiis boo xamante ne ni dal na ci suñu kaw. Mhm. te di wax xamal sénégalais yi ne reen. Mhm. wax dëgg neex yàlla lii nii dal tey. Mhm. ci Euh, Sénégal. parce que dalul ci monde lamb kessé ci Sénégal la dal. ndax euh, bu len faté né du suñu papa doubles euh téwal na Sénégal fu nek kon ku mel noonu tay jaadu woon na état. Ah, def déplacement ñëw takal ko chapeau. barki dem mang koy wax ak Ipoñ Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. dafa am lo xamante ni état waru koy négliger surtout ci lu jëm ci sportif bo xamante ni li tay ñun moy suñu sport national. defal Sénégal lu nekk. defal Sénégal lu nekk représenter drapeau réew mi. kon bu mel bu lu mel ni amé euh, jaadu won na ñu déplacer wu. ñew def chapeau. Mhm. mais nak mhm. sagam yoon jeexul waaxu sul du wees moo tax euh, dañuy lu rek waye di delloo ci xel yi ci yalla si mhm. xam suñu borom rek moy dogal boo gisee ma xaw triste nii ma xam nañ damaa ñàkk. dëgg la xam naa dara man. waaw Balla Gaye bu ñàkkee. 1000 mm-hmm. jàppale 2000 yi man maa ñàkk. dëgg la. kon donc am na loo xamante ne bu xasee ba am dañuy delloo suñu xel ci yàlla. xam na borom bi moom moo ko sañ. Mm-hmm. moom moo soxla jaamam nanguwaat na ko. kon donc bu doon doomu aadama la dañ koy jëflanteeg moom. Mm-hmm. mais comme yàlla suñu borom la kenn du xëccoog moom. dëgg la ñu ngi koy ñaanal fi mu jógee nii. yàlla na ko gënal. fa mu jógee fa mu jëm yàlla na gën yàlla na gën fa mu jógee amiin ci dara waaw suñu papa nag mhm. euh, bu ñuy toog di wax ay waxam fii mhm. boo motul mhm. fanaan fanaan sax du fi doy xam naa loolu waaw kon donc euh, leen rek lañ mën ñun ñaanal ko mooy ñaanal ko ndeysaan maa ngi jàllee Balla Gaye bu baax a baax a baax euh, di ko maslo di ko ne ko ñàkk waajur nag métti na parce que waajur muy bu góor bu bu jigéen bu jógee rek dina am lu vide ci yow kon donc ñu ngi koy ñaanal na muñ xam na àdduna nii la ñu ñaanal suñu papa rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. e di ñaan yàlla mi xam ne moom dara teewul e yàlla na ko yàlla xara ajana suuf si set si kawam ndax njool man daan ma ko sa turam njool rek laa ko moom yaa ko xam nag loolu mooy tur original la toog ba ma ne ko ma jaar tur bi mbaa ma jaar tur bëri bi man njool rek la ma doon waxal te saa bu ñu demee ba guddi ba guddi. maa ko moom mu fere oto bi man est-ce xam nga ma ma ne ko est-ce que xam nga ma. loolu lañ doon waxante maa ko moom. yàgg moom. wallaahi lesin moo tax tey e, du bés wax mais fa nit ñi wax. nda nda njool mu def Sénégal rëy na bëri na kenn mënu ko ba jeexal e, li ma gën a gàttal wax ji tënk wax ji mhm. yàlla na ko yàlla xare ak suuf si seet si kawam ndax njool nekkul njool Sénégal kese njool mhm. dafa nekk njool Afrique mun na la wax monde entier. Mm. ndax représenté na Afrique. Mm-hmm. représenté na monde entier. donc kon nag tey bu demee bu bàyyi ko fii bàyyi ñu fii. Mm. amuñu dara dul ñaanal ko yàlla na ko yàlla xare àjjana lépp lu mu juum mm-hmm. ci àdduna mu mm-hmm. xam ko bañ koo xam yàlla na ko yàlla jégal yàlla na ko yàlla aar njabootam yàlla yàlla si sutural njabootam yàlla bu jabootee am dara leen naqari yàlla bu am fu mu tëddee yàlla bu mu am rëna rëcc ci àdduna ci àllaaxira yàlla suuf si oyof si kawam sant que tamit Double am na am na wërsëg chance bu ma am bi mois de bàyyi am na ñu formé muy ñun xam nga loolu la si njub si digal nit muy dox dox bu baax di wax wax ju baax fen moom fële lañ ko teg xamun ko jàppale xale yi te noonu ñu ko jàppale woon xale yi toog xam ne jaru ñuy tiir te xam ne ñun ñu fi ba léegi metti na nag ana ana ana ana Balla Gaye 1 ñu ne dem na ana ana ana ana Sa Kajoor ñu ne dem na ana Mor Fadam ñu ne Alioune Seye ñu ne dem na bu mujj ñu ne sa sa baay dem na muy Pa Daouda Fall Pa Daouda Fall papay les xam ne fa la toog di wane nan la euh, boole ko ak kóllëre gu jaaroon seen diggante mu jël doomam tudde ko lees du ba lees waaw moo tax euh, géej waaye moom ñàkk waaye nag ah am nañ ay ay ay ak luñ fi bàyyi de te wax dëgg yàlla ñun taxawaay boobu ñu taxawoon ah dana jéem a taxaw noonu dana métti nag dana métti waaye danañ ko taxaw buñ ko taxaw taxawu leen yàlla yër leen ñu wut lépp la ñu wut yàlla defal leen si jàmm naqar la metti na mais il faut ñu delluwaat ci yàlla aussi parce que boo xoolee comme ni nga ko waxee léegi ci musaa Ndiaye moom ba muy xam Balla Gaye Balla Gaye amul vingt mille francs de cachet a ay millions comme disent les wolof lu sorti am boromam mais changé wul dara ci ah. responsabilité jël ci rek koy jël mais duñu xëccio dara duñu duñu duñu wax duñu xëccio duñu dem fenn amuñu problème bobu li ñu am problème nañ ba ker gi c'était le plus important Faire TV wax ak mais jàpp leen borom en tout cas li ma gëm mooy. Mbaw mhm. du hypocrite du mhm. saytaane te du waxantu.